maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu patriote yëpp nag góor a jigéen nag ak ndaw te di leen wax ne seen xel dal te ngeen delloo ci yàlla a na ko yàlla garanti Seydina Ousmane Sonko ne yàlla sama yonte na ko mën na ko la ko yàlla def di nuyu ñëpp di ziare ñëpp nag waaw di leen wax ni macha allah suñu député yi laf cat laf cat yàlla yàlla guddal seen fan teral leen te sàmm leen garanti leen ndax boo nekkee ay saay-saay euh, jooju la yi aajowoo di leen ñaanal li may wax sa jour jullit bu la gën a fonk ñaan moo la gën a yaakaar yàlla te ko yaakaar yàlla yàlla du tas sa yaakaar te di leen wax ni patriote yi dalal leen seen xel bu leen tiit bu leen ragal fii yàlla moo fi ne dalal leen seen xel bu leen tiit bu leen ragal fii yàlla moo fi ne waaw dégg naa ci euh, Mollah Morgun Euh, ne Macky dañ ko dig bopp Ousmane ko tegal ko fa ci taabal bi <laughs> jaam ak pexem yàlla ak dogalam li may wax chaque jour dafa wax dama ko dégg dama reetaan yéene néeg la borom a cay fanaan yéene kër la borom a cay dëkk te lu waay di yéene na nga yéene nit lu baax lu waay di yéene na nga yéene nit lu baax man nag li may wax chaque jour samay wax duma ci jóg gëw ma estrage Macky Sall gëw keneen ku dul Macky Sall yàlla laa gëm Macky Sall mu na ne li la bëgg defal leen ma li Yalla def loko nek neex te du neex def lu la neex am lula la neex do ko am fenn def lu la neex am lu la neex mëno ko am fenn te ko lolu kenn mënu ko am def lu bon am lu baax kenn mënu ko am waye def lu baax am lu baax nee nañ boo defee lu baax baax day wëri mbokam wër ay mbokam ba mu daje xëppalako ko bo boné bon day wëri ay mbokam wër ay mbokam ba mu daj xëppal ko ngani luma def yalla luma def dooma aadama fekk ko defoo dara nga togg sam sam bon mbon ñew te taaju na la añ ma fal force yow kessé wa dama ni damay dégg man ay dañ naan Ousmane Sonko dinañ ko japp fi dinañ ko jël fi dinañ ko attaqué fi premier némé ko touram ko police yek ñepp topé ba nga xamantani mu mel ni kuy attaqué doomu aadama geer Yalla bañ pourtant amaana seen pexe bu sotti woon bu sotti woon duñu ko waxati booba dégg naa benn vocal naan Ousmane Sonko policier yaa ngi nii ci buntu otel bi policier yaa ngi ci buntu kër gi policier yaa ngi nii dinañ ko xëy jàpp wax leen ci naa yoonam déedéet duñ ci wax yàllaay wax ak ñoom duñ ci jëf yàllaay jëf ak ñoom dañu tollu foo xamante ni gouvernement Sénégal xeexul ak askanu Sénégal yàlla lay xeexal chaque jour wax leen ko te kuy xeex ak yàlla ñàkk kuy xeex ak yàlla torox kuy xeex ak yàlla rëbb suñu borom wàcc sa kaw yàlla kenn mënta xeexal moom dinaa leen jox exemple te ngeen dalal seen xel te xam ne fu ma wékk samay mbir fu wóor la muy yàlla ngir yàlla bu leen dégg dara ci Ousmane Sonko di tiit bu leen dégg dara ci askanu Sénégal di tiit kuy tiit jàngoo alquran jàngoo histoire firawna jàngoo histoire abraha jàngoo histoire abala jàngoo histoire ummi jamil waa dama ni keroog ba policiers yi taxawoo Ousmane Sonko xamu leen lu tax ñu jékki-jékki romb ko de waaye dama ne keroog ba avion bi di tiimee Ousmane Sonko di ko lool boobu lu ñu bëggoon dañ ko bëggoon ne coppet yóbbu xamu leen lu tax yàlla gàntal leen de dama ne policiers yi dañu topp Ousmane Sonko ba yàgg mënatuñu ñu dem seen yoon xamu leen lu tax de waa dama ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko noonam ya toppee ba ñu sonnee ba nañ ko de. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ko mm. noonu ñu toppee ba mu jaral leen ñu fanaan ca néeg ba ca ba mu fanaanee ca néeg ba ñoom ñu tëdd ci buntu néeg bi ne dañ koy xaar ba Seydina Muhammad sallallahu génnee léem léemu li muy léemu ñoom ñëpp tëdd nelaw mu romb leen dem mm. yoon ñu biddante naan waaw fu mu jaar fu mu jaar ñaan yooyu ba tey mi ngi fi yàlla boobu ko tiimoon nangu ñaan yooyu ba tey mi ngi fi dégguleen ma de Ousmane Sonko ay wàllu ay xut bu ñoo koy ñaanal ay kilifa man nag dama leen wax dellu si seen xel war na leen xaw ma dara mënuma dara jaam laa buy toroxul sama kanamu borom jam la bu taq tilim bëgg sama borom sakal ma mais damay delloo ci seen xel xamal ne leen ni Ousmane Sonko lu yalla mënu ñu ci mom dara day am ñu may woo waa umma yow xana yego wax ji xana yego wax ji man leen man xam nga luma yegg yëg mun ah, ko dégg wax wax ak yalla dégg ñaan yalla ta ñeneen ñi tamit non lañuy def fi yalla mo fi ne bu leen tibulen ragal gis nga bu ngeen déggee ci lu ci lu ñaaw Ousmane Sonko kontaan leen ta xam ni loolu seen kaw lay kepp seen kaw lay kepp nit mënoo koo tooñ ba pare yàlla may la ndam ci ki ko tooñ yàlla moo taxaw ne nga képp ku tooñ sa moroomu jullit soo mënee fayul tolloog la mu la tooñ soo ko mënul jullil dëppal sa ci suuf ñaan ma ma fayul la te fayub yàlla xañul ci doomu aadama te fu mu toll nii yàlla mooy fayu ci gouvernement bi. yàlla bi ma jox leen exemple seen xel gën a dalati waa dama ne Guy Marius Sagna lu ñu ko doon sonalee Guy Marius Sagna xotti nañ mbubbam toroxol nañ ko. torturer nañ ko def ko lu nek ci kasso bi mu ngank fi mo ngank parce que mo xamni mo ne ci deug te ku nek ci yoonu deug fokk natt top la te bu la natt topé fokk nga admire ci ne at yoon ci yalla yi te bu la euh, natt topé fokk fokk yalla garantie la may la ndam parce que koku moy yalla yalla dula dik muko dila nax doomu adam moy dik doomu adam diko nax yalla dula dik muko dila wor doomu adam moy dik doomu adam diko wor yalla dula dik muko di tass yakaram doomu adam moy dik doomu adam di tass yakaram wa man gi di saña toroxol nañ ko te tiji tay fal force mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi bi fal force mi ngi ci ensemble bi. Macky Sall mi nono Guy Marius Sagna mi ngi koy fal mi ngi koy fay fal force jox ko oto fal force ki mooy yalla allahu akbar ki mooy yalla ki nga bañ nga ne bu mu dugg ci ensemble bi bëgguma mu dugg. yalla duggal ko ci ensemble bi ñu ne dété way yalla mbugal la ko koy fay fal force jox ko oto waaye nag gëm len yalla sama gaay gëm len yalla léegi xool leen lii ma leen wax bu doon lu waay neex nit def mu neex yàlla kon kenn du fi des waaye yàlla danaan xalaata lu la neex te du ma la ko defal boo dee noonu xalaata loo bëgg waaye du ma la ko defal ci kaw jaamu yàlla boo xam ne daf ma déggal daf ma tànkam lu ma catholique bi sax bu taxawee ci dëgg yàlla da koy fekk si ci dëgg catholique bi sax boo ko tooñee yow jullit bi yàlla da koy fayul kon yàlla dafa maandu motax kep ko la togn bo beugé atté bu gaaw julli sa ñaari rak ne ma ne yalla na ma yalla atté diw ci maagu tëm day accordé ci sasi motax bayi togn togn baxul kon Macky Sall dafa togn Ousmane Sonko ba pare di yak deram li yalla ba ñëpp la la tek ci ndod Ousmane Sonko motax yalla diko sétal motax Macky Sall lu mu def yalla mbass ko sama gaay wax leen dëgg ba la ngeen wuy jëkkëru dëgg ku yaakaar da ngay wax dëgg dee wala ku yaakaar da ngay wax dëgg ni ci dafa fekk yalla and ñu tëkk ci kaso bi bu yalla ne du dugg kaso do dugg kenn du nekk ci dëgg dëgg dëgg bañ la garanti képp ku dëgg ci dëgg ci dëgg sax ci dëgg dëgg moo lay garanti man ummi gay dëgg moo may garanti mais du mu ndéef man ummi gay aw ma avocat aw ma juge aw ma dara yàlla mooy sama avocat di sama juge ponkal mu mag bi moom mi mujj atte juge yi bu ñu mënoon duñu dee te ku ci dee yàlla atte la kon munoo dara yàllaa mën dara allahu akbar ku wéer sa bopp ci yàlla yàlla téel la boppam sama la boppam garanti la boppam waa dama ni ma waxati leen ngeen gëm Macky Sall tay ñi mu noonoo tay ñoo taxaw Félix Antoine Abdoulaye Diom Di Marius Sagna moo doon tëdd ko ci tay Di Marius taxaw di wax deug fal fot te mënu ci dara ki moy Yalla lii moy jëfu Yalla moo tax ku sax ci deug tito ragalo Yalla mo lay garantie sam la ba ci sa biir non ko taxaw sey non di leen wax deug fal fot la mënal dara fi Yalla fi ne ku japp ci Yalla japp ga ci neen ku japp ci neen bo ci la nga moy daanu mais ku japp ci Yalla do daanu ku la bëgg daanel torox daanu ku la bëgg dugal ci kàmb di la ci dugg nga suul ko kii mooy yàlla altine tey nañu waxoon dañuy attaqué Ousmane Sonko yóbbu jël bopp bi yóbbul ko Macky sàll gisaguñ ko de jaam ak pexam yàlla ak dogalam man nag féetewuma fenn liggéeyuma Pastef waxaluma Pastef ànduma ak Pastef am naa droit jigéen laa damay toppandoo suñu yaay Soumaya di roy suñu yaay Soumaya di roy suñu yaay Aïcha di roy suñu yaay Khadija génn golo gudd na waaye loo ca laal boobu yëpp yaayu askan bi laa nag fépp fu fu njabootu askan bi laa nag dama fay taxaw wax lu ma dégg dama ciy wax wax ci sama xalaat sama gars yi suñu ñaari am de tën yii dee ak ñiy dee lu waay def sa bopp lu waay rendi say loxo lay naaj wuy ji nañ suñu borom wuy ji nañu ko dëgg ga yal na leen yàlla xaree ajjana waaye dama ne waaw boo toppee nit di ko faagagal pour lan lan mooy senn wala lan mooy wax te ñooñu ñu faagaagal wax nañ liñ leen faagaagalee wax luñ ko jaarale wala ko kon ana waxkat ba kon an ki wax yàlla mooy wax mooy feeñal nit ku bon allahu akbar allahu akbar gis nga boo bonee di def def ju bon yàlla moo lay mbugal mbugal boo xam ni chaque jour loo def yàlla weer la feeñal la kii mooy yàlla ngay gëstu naan kan moo may waxal kan mooy wax doo ko mas a gis parce que yàlla moo la tim moo lay weer ndax ba ngay def boobu suuf sedd na kenn gisu la waaye yàlla mi ngi la tim gis la wan ne la maa ngi lay gis xam nga loolu képp koo jullit jàngat ci booy def lu bon war nga bàyyi def lu bon parce que loo def yàlla weer la nga ne ah neexul ba neexul nag nekkuma ci dëgg parce que lu ma def yàlla weer te boroom dëgg bii chaque jour yàlla suturaal ko xaw ma xamalu ma ko dara kii mooy yàlla borom dëgg chaque mi ngi def yàlla da koy suturaal kii mooy yàlla ndax Ousmane Sonko mun nañu taxaw wax ko waxal ko dara Ousmane Sonko boobu ba tey wasin na nañ ko wax loolu wasin na mais amul luñ ko sosoolu ci kaw suuf te pourtant mosu leen indi koo xamante nee nañ Sonko ko rey amul fenn laahu akbar mosu leen indi benn nit ñu ne Sonko moo ko rey wala ay nitu Ousmane Sonko ñoo ko rey nitu Ousmane Sonko la ñuy rey nitu Ousmane Sonko la ñuy tëw tiire nitu Ousmane Sonko la ñuy sosal nitu Ousmane Sonko la ñuy tuumaal yàlla di seetaan ay waay bu yàlla yëngoo ngeen xam ne lépp dëgg damaa ne leen di kontaan di ngeen kontaan Sénégal te gu ma ko fenn fu dul ci di ngeen kontaan sama gars yi ñeme leen dëgg ñeme leen dëgg tey ana sëriñ si sëriñ si tey gouvernement bi di def lu leen neex duñu wax tey fu gouvernement bi mujjee jël ay bandi ay vayu dugal leen ci ensemble bi ñuy saaga sëriñ si du wax lu bon sëriñ si ban Sénégal nañu ne dama yàgg naan yéen a ngi seetaan loo xamante ni ma ci bokk ma ci yéen ñëpp lay laa laawaare te mi ngi nii foofu nañu toll tey foofu nañu toll tey ana suñu am da ten yi tey ñu doon génnaloo di dóor askan bi di boom askan bi di rey askan bi ana ñu tey tey ñoo aya am nañ naqar allahu akbar allahu akbar ku kalaame yàlla yàlla fayu la fajal la man sama ñaan chaque jour lan la yàlla rëbb suñu borom bi wàcc ci gouvernement bi yàlla rëbb suñu borom bi wàcc gouvernement bi allahuma inna najahaluka fi nuxuurihim wa naonzu bika min shururihim yàlla moo wàcc aaya boobu parce que yàlla xam na liy ñëw ëllëg mune sama jami jafandu len ci li bu ngeen gisee bour bu bon di toroxal askanam di turug tere askanam de len tuddu li tuddu turam man yalla mo mbugal ko wacc ci kawam toroxal ko dotul am sutura ci mom dina xawi suturam dina ko wer ana fuñu ñu tay ci nguur gi parce que ñepp ngi ñaan daaray alquran ñepp ngi ñaan lu mu def yalla wer ko lu mu def yalla wer ko te duñu tedd ba bañuy de sama gaay bayi len leen bi bayi len soxorante bi bàyyi leen iñaanante bi Sénégal ñu ñoo ko bokk gis nga àdduna buñ ne àdduna du dara dañuy juum ak tàmmal ko suñu gémmiñ mais nit moo dul dara parce que àdduna bii lañuy liggéeyee passeportu àjjana àddina bii nañuy liggéeyee suñuy jëf bu ñuy wettali suñu bët bàmmeel àddina bii nañuy liggéeyee tóor tóoru bi jaaw àddina bii nañuy liggéeyee kër gu baax àddina bii la ñuy liggéey loo xamante ne loo yóotu jot ko àddina bii la ñuy liggéey di ci jaamu yàlla jege sa borom ba loo ko ñaan may la kon àdduna dara la ndax yonent bi fii la dem ñëw fii bàyyi fi àddina xutbu yi ñëw fi dem bàyyi fi àddina sëriñ si ñëw fi dem bàyyi fi àddina kon àddina dara la ndax àdduna liggéeyukaay la ku ñuy liggéeyal suñu borom kun fa yëgul almeer almuwaar loo fa dencul doo ko fa fekk tey awma sañ-sañu dem ci almuwaaru Macky Sall ne ko lii moo fa ne lii moo fa ne moom moo xam la fa loo fa denc doo ko fa fekk de bàmmel noonu la mel kon àddina dara la looy liggéey fi nga koy liggéey tey gouvernement bu bon bii ngay gis lu mu liggéey bés dina ñëw dina rëccu lu mu juddoo ci kaw suuf dina rëccu lu ñu nekkee ci kaw suuf ndax su boobaa dinañ ne yàlla may ma ma dellu mun leen déedéet dellu mbugal mooy sax fii ci yéen ndax yàlla dafa teg ci alxuraan teg ko ci charte yu leer ku rey ñooñ la rey kuy jaay doole rey reyuñu la boo demee fekk fa yàlla mu def la lu raw rey mbugal gu bon rey sama gars yi kuy wax di sóoraale doomu aadama lii laa war a wax wala su ma waxee lii ñu ray ma wala ma tëj ma naa fekk nga kenn doo ànd ak yàlla te doo ñeme dëgg kenn du woyteeg yàlla te doo ñeme dëgg kenn du ànd ak tawxiid te doo ñeme dëgg kenn du ànd ak taqwa te doo ñeme dëgg kenn du te ànd ak insaan te doo ñeme dëgg waa dama ne kuy kàcc di kàcc di kàcc ba gouvernement bi jóge fi ban gàcce boobu ndax dañ ko mën a toog di xool ak sa askan ku ne bëgg nga askan bi ànd askan bi nga wëlbati ko ànd ak gouvernement bi waaw gouvernement bu fa jógee ban gàcce ngay am di jàkkaarloog askan bi di wax kooku est-ce que war kon sama gars yi sëriñu daara yi yéen laay waxal da ngeen am valeur bu daq valeur te xamu leen ko yéen sëriñu daara yi ngeen ne yàlla ngeen fi nekkal am na ñoo xam ne duñu sëriñu daara de yéen a tànn choisir kàddu yàlla yi di ko xamale ndawu yàlla yi kon la way da ngay a kub dak jama muy lan alquranul karim wa sunna alquranul karim wa sunna mo dak adina ci kaw suuf français loko fi janga janga di titoro di am ay kër yu rafet oto yu rafet ci fi lay yem mais alquran loko ko jang so soo sa bir bammel nakir ak munkar muy malaka yoy ñaari malaka yi lay laaj alquran arabu yalla bi lañu waxtaan ak yow ci nañ lay laaj so mokkalee laaj yoy suñu borom bi nga degg alquran batam ci kaw ne sama jambo bu dëggu na ci alquran la koy wax diko wax ci français kon sama gaay yi kon yen serignu daara yi yeen lay waxal yen yen yen yen yen yen yéen nitu yalla yi yeen lay waxal ku jaral nga choisir ce serignu daara jang alquranul karim numu mu numu nu nga far ijj dugg alquran yàlla neexal sa dënn am na ñoo xam ne yàlla neexaluñu seen dënn mokkal alquran yow yàlla neexal sa dënn nga mokkal alquran amoo looy fayee suñu boroom nga dem di ko jëndee ki nga xamante ni day xeex diina gi day xeex lislaam day toroxal diina ji day toroxal lislaam mu woote nga wuy ji ko boobu bàkkaar yàlla du la ko baal mukk ci kaw suuf ndax dë dë dëddu nga dëddu nga heure yàlla yi nga war a julli dem wuy ji ko buggul yàlla dëddu nga waxtu yàlla yi nga war a jàng alquran ko dem wuy ji ko buggul alquran sama gaa yi ku ragal leen yàlla ragal leen yàlla te bàyyi war gi ngeen nekkee Sénégal sëriñu daar yi ci kaso bi fees fa del del del del te ki leen tëj ne sëmm taxaw di leen xool ki leen tëj wëlbati ko di leen woo ngeen koy ji war ngeen seen moromu sëriñu daar yi ci kaso bi allahu akbar te ku war doomu aadama yàlla yow yow fu nga jëm yàlla newu fa te fu yàlla nekkul nee na fa ne te fu neen nekk torox nga dama xamal leen leen nag kii ngeen wuy ji sen imam ko na de seen taqwa ko na de tawhid tawxit ko te da ngeen ko xam billahi wallahi warbul kaaba da ngeen ko xam da ngeen ko gis ngeen ci tek sen bët te loolu lu tax wax ko dina ci ñew ci kanam xaalis bu ci way lek dina nek poson sa yaram xaalis bu ci way lek wàññi nga sa taqwa wàññi nga sa insaan wàññi nga sa tawhid damani fu ñuy saaga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo kee leen woo dem taxaw fa témoin fa mu neex ko lool te ngeen ne yéen da ngeen taxaw ci tànku Seydina Muhammad fa mu jaar ngeen jaar fa kon ki ko saaga bu leen woowee ngeen dem kon yéen yem yéen sëriñu daara ñi wuyu ji nag laa wax waxuma ñi wuyu jiwul waxuma ñi wuyu jiwul yàlla sax bu la meree boo ko woowee du la wuyu yàlla sax bu la meree boo ko woowee du la wuyu Sénégal Senegal andale nak sen ngor jeunes yi buñ ñu gën a gore ni xif amuñu njëgu pantalon amuñu njëgu tubéy mais dañu andak sen ngor ku leen wo duñu wuyu parce que dañ ko wone da nga ñu bëggol xifal pour jaay pour jënd suñu ngor waye dañay xif andak suñu ngor ñu jënd allahu akbar ki mo yalla nit ñi ñu de ku yaakar ni xalé yi dañu dof ñi dañu dof nit ñi ñu de te yeen sëriñ daara ñu wuyu ji gatcha dina leen ray ta du ngeen ko xam legi nak gatcha dina leen ray gàcce dina leen rey ndax mënuma gëm ni Sénégal ñu ne seen sëriñ si la ñu am Sénégal ñu ne oustaz yi la ñu am Sénégal ñu ne nitu yàlla yi nañu am kooku taxaw devant tout le monde jël spécial ñoo xam ne dañu nekk ci biir ensemble di saaga nitu yàlla yi di toroxal nitu yàlla yi ci seen kanamu taalibe yi ñu wëlbatiku kooku woote nitu yàlla yi ñu wuy ji leen waaw ban Sénégal la ñu nekk man fan yëpp waxuma parce que maa ngi sëgg ci alquranul karim bi mais dama am lu ma metti ci ma ne foog ma live foog ma tegal leen sëriñu daara yi sama gars yi gëm leen yàlla teg seen loxo ci yàlla xool leen lii gis nga yonent buy gane si àddina day am ay signe muy indaale yonent buy feeñ àddina dafa am ay signe muy indaale nit ñu baax bu ñuy gane ci aduna dafa am ay signe yu baax la ñuy indalé mais nit ko xamanteni dafa nekk ci aduna yàlla jabal ko mu yërëm jami yàlla yaram ko mu wara a xettali jaam yi mu am signe bu mu woné gis nga ay xale ay ndaw ku ñu bëgg yow mi koy bëgg toroxol yow mi ko nono top ko moytu sa bop moytu sa bop xale mu minu yàlla dafa jégué yàlla top motax ku mu bëgg bu ko toroxol xoolaatal koku lutax lutax xale bi bëgg ko lutax xale bi bëgg ko. ayca bisimilah ngeen xam ne hmm. lu dul neen luy neen lu ne lu dul neen a ko gën ayca bisimilah waaw nee na Ousmane Sonko boo jëlee réew mi diine gi dina siggi daaray alxuraan seen xel dina dal alxuraan moo fees sa dënn jaamu yàlla nga bul tiit bul ragal yàllaa lay gunge moo lay sàmm gis nga xale lu mu wax gis nga xale lu mu wax ba ñaan ko bàyyi leen ko xel dara gënul bon ku yàlla taral nga bëgg ko toroxal dangay ngay torox gis nga xalé ku yalla teral ku yalla bëgg xalé da lay bëgg da lay jege xam nga dafa am ben ben kàddu bo xamni bo né nitu yalla yalla sobal la bopam bëggal la bopam day wo jibril né ko jibril sama jam bi di diw doomu diw bëgg na ko bëgg ko nga yëg kaw asamaan ne yàlla ne astafurlaa bëgg ko yëg kaw asamaan ne malaaka yi ñu bëgg ko ma tabal ko ci xol yi suuf ak asman bëgg ko te soo ko yàlla def loolu boo ko bëggee toroxal yaay torox te signe boobu néew ma Ousmane Sonko euh, euh, loolu loolu loolu la ko yàlla defal mais signe boobu gis naa ko ci moom ay xale yu tuuti duñ ko bëgg ay màggat yoo xam ne dañuy raamaan di jooy ndax moom di ko ñaanal kon sama gars yi ragal leen yàlla delloo seen xel ci yàlla gis nga ñi ci réseaux sociaux di bañ doomu aadama te yàlla tax di ko yéene lu bon ak di ko waxal lu bon ak di ko monter lu bon xaar leen seen bés dina ñëw xaar leen seen bés dina ñëw dañu nekk ci jamono yoo xam ne ku def lu bon añ añ añ bu bon ku def lu baax di nga ci reer di nga ci añ di nga ci ndékki ba doyal kay ba naan lu ma defal yàlla munuma gis nag kuy xeex diine di toroxal diine di torog téere nitu diine di torog téere julit nga ne yow da nga ko bëgg da nga koy xeex la da nga koy jàppale yow naa fekk nga yow nit ku bon nga te yàlla na rëbb suñu borom wàcc ci ñooñu ñun yàlla nañu gëm yàlla nañuy waxal sëriñu daara yi kenn mënu leen nax sëriñu daa daar yi nga xam ne yàlla la xam ànd ak yàlla gore kenn mënu leen a nax kenn mënu leen a jënd ndax xajuñu ci poos duñu ay xar ñu ay bëy ñu ay nit ay xara ki bëy ay nag ñoo ñooñu ñoo am njëg mais ñii ay nit lañ ay sëriñu daara nañ ay sëriñ lañu parce que yow boo xoolee sëriñu daara yi li ñu leen di sosal fii di jël ay góor jigéen ñuy sëy ci sëriñu daara yi te duñu sëy ci église yi ñu leen koy sosal lépp ba pare ñu wëlbatiku di leen woo loolu mooy kaay woowe ma mokke leen te nag sëriñu daara yi dofuñu de li ñu leen woowee lim bi ak ak ak ak ak ak ak affaire bi xam nañ ko de dafuñu de lim bi ñu leen woowee dafuñu de xam nañ lépp de déglu leen. mbokk jullit yi seen mbokk Cheikh Hadj Omar Sylla Niass ñun suñu kàddu ñu ngi koy jëmale directement ci président de la république Macky Sall di ko wax ne ko bi mu jiitee Sénégal ba léegi sëriñ daara ci naqar ci lañ dëkk Macky Sall keroog bi ma jëlee ci réew mi ba léegi. jëlee nguur ak Abdoulaye Wade nguur ak Senghor nguur ak Abdou Diouf yow kenn sa nguur gi li nga tëj ci ay sëriñ daara ci xoolal ne la ñett yow kenn li ñu métti tal ñoom teg Macky Sall garab bi nga gisee léegi la ab ndawal ministre Diouf ànd ak préfet ànd ak i policier seen kër baay Macky Sall garab bi nga gisee Sénégal ak sëriñ daara yi bët bu set ñuy dugg ci Dakar ak xor ñañal réew moo xam ne ñun ñu ne ñoo ko bokk ku bëgg jaay sàngara ngeen may ko pare ku bëgg a cagatu ngeen may ko carte ñun ñu bëgg a yar suñu ci jàng alxuraan ñu ne ñu du fi amee semaine bii ñu génn yéen journaliste yi xam ngeen ne fës na ci média bi ne semaine bii Sénégal ñi rey ci ay nit ñi ëpp ñuy ay ndaw kon war ñoo defaraat yar bi ñun bu ñu war a yar suñu njaboot gi ngeen ñu duggoon fi yare ñu bëgg xam ne ñun sëriñu daara yi bàyyi na leen ngeen ministre yi bàyyi leen pouvoir leen àll réew mi ngeen ne du ngeen ñu bàyyi suñu pas-pas fan ngeen ko teg ñu ak yéen ñoo ko bokk ñun yàlla lañ gën a ragal ci yéen. naaw ak baax li a ragal li yàlla wax la ñuy def li ngeen def wax duñ ko def tey duñ ko def tamit. jërëjëf naaw ak baax. na leer ci bopp yi ne Macky Sall sa wootee moom nga wootee gannaaw suba altine ne sëriñ daara dañ ñëw ci yow li la gën a wér tey ñëw ci yow ñu ci bëri du ñu sëriñ daara yëg naa ci mbuur ak feneen ñuy bind ay nit ñoo xam ne nekkuñu ay sëriñ daara goofalee ko seen liste ngir wuy si la sëriñ daara yëpp ci Sénégal di jàngale teew a tax ñëpp dañoo bañ ndax mere guñu la mere yaag sa gouvernement bi nga toogee léegi nga ñu mboyoon jàmm xañ ñu mboyoon liberté yàq yàq daara yu bëree bëree bëri li ñuy wax nag mooy leen dara ëppal nañu ko suñ daara yii ak ni ñu yore suñ doom yi kum neex am kum naqar dina am mbooloo mii fi dajee pare nañ koo xam ne mu ngi dox suñu diggante alxuraan yàlla jooy leen nguur gi sonal gi ñu sonal daara yi ñu ngi ñaan yàlla seen nguur gi yàlla na ko yàlla jeexal yàlla nañoo bokk réew mi ñii dafa jot boo ñu réew mi parce que moom ñu dem dee koy réew mi ci koy Sénégal bi Macky Sall ñëwee ci léegi reyante bi kenn xamul nu mu toll te ñoom ñoo ko def ci réew mi réew moo xam ne ñoo ñu andil ministre bu tudd genre mooy góor jigéen ci réew mi doole sax caaxaan mooy yàlla bu set ñuy xeex alxuraan ñun nag bari nañ ko doxal suñu bakkan yi wax leen seen koor yi nekk ci tribunal ak police yi ñu may jàmm nañ ñu may jàmm. defe naa dégg ngeen ko de dinañ ñaan nguur gi jóge fi te ñaan ko lu yomb la nag dinaa leen ñëwal ci ñaan boobu incha allah beneen bi mooy bu leen tiit bu leen ragal gis nga pour ma wax leen seen xel dellu si ci yàlla ana aji saar ana aji saar mi nu yoroon def ko arme ana mu tey. fu dëgg mujjee gis nga yàlla bu la nammee fay foog mu liggéey loola coono foog mu liggéey loola ndattu mais boo muñee di ci at mi ne at mi yonent yàlla yi ana aji saar mi doon doon dubboo di ko politiquer jël projet aji saar teg bàyyi projet jeunes yi ibbi wuñu usine jeunes yi ibbi wuñu projet hôpital yi ñuy faju ibbi wuñu projet pêche bi ñu ñu napp jën ibbi wuñu projet nappkat yi ibbi wuñu projet chantier yi ibbi wuñu projet baykat yi projet Adji Sarr rek ngay dégg boobu ba tey projet Adji Sarr parce que gis nga nit ki boo nekkee ci kaw suuf ragaloo yàlla yàlla dalay indi nitam boo xam ne moo lay mbugal guddi ak bëccëg doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg te doo ci mën dara kii mooy yàlla Firawna ba mu naagoo ci kanamu suñu borom da koo indil musaa teg ko muy fitnaam allahu akbar allahu akbar Firawna ba mu ba mu taxawee naago ci kanamu yàlla da koo indil Moussa muy mbugalam kon Macky la gëmal ni Ousmane ko mooy sa mbugal ci alquraanul karim nañ ko teg ci alquraanul karim nañ ko teg Adji Sarr mi ñu doon armé woo tey anamu mooy seen ndox mu tàng mooy seen safara tey bu ñu sañoon allahu akbar bu démb doon tey duñ ci dugg bu démb doon tey duñ ci dugg moo tax sama gars yi moytu leen jigéen ak xaalis li yëpp jigéen ko xaalis ko indi lu yàlla wax dëgg jigéen ju baax mooy defar waaye jigéen ju bon mooy yàq Adji Sarr ju bon la Adji Sarr ba mu taxawee fen doon jigéen ju bon taal dëkk bi nday xarit jigéen ju baax di roy suñu yaay Summaya di roy suñu yaay Aïcha di roy suñu yaay Khadija taxaw ni dara amu ci jaayul ngoram jaayul diineem jaayul dignitéem jaayul personnalitéem lii nañuy doyee jigéen société bu baax bii jigéen moo siggil ndeyam mm. histoire ci Sénégal muy nday Khady Ndiaye bii jigéen moo siggil baayam bii jigéen moo moo sauvé askanam bii jigéen moo sauvé ko nga xamante ne dafa bëgg xettale askan bi lii la ñu doyee jigéen yaay ju baax mais jigéen ju bon foo ko fekk day taal askanam jigéen ju bon foo ko fekk day dund ci dund su ay waay rëccu mais jigéen ju baax lu mu def xeeb ko muy Ndeye Khady Ndiaye yal na yàlla sàmm ko Ndeye Khady Ndiaye lu tax mu nekk jigéen ju baax dafa jox boppam yàlla yàlla garanti ko motax man len ne leen bu len bu ragal parce que nday xadi njaay bu mu joxee yalla yàlla boppam jël dëgg jox ko boppam yàlla da koo sàmm parce que nañ ko de yalla ne do de do de parce que yaay wax deug yaay sauver sama nit kii ma booleeg Macky muy mbugal muy Ousmane Sonko allahu akbar motax sama gars gem len yalla man luma tit lo jafena man luma tit lo jafena parce que alquran la saxal sama dënn diko arroser allahumma salli ala muhammad wa sallim ndax ñom ñaar ñoo and foo ñaanee te julliwoo ci Seydina Ousmane yàlla day aj day aj ñaan gi foo ñaanee julli ci Seydina Ousmane yàlla accordé ko moo tax ma ne alquran laa feesal sama dënn di ko arrosé allahuma salli allahuma di wasallim moo tax kuy def loolu doo tiit doo ragal dara du la yëngal ci kaw suuf xasbunallahu wa ni'mal wakiil wallaahu yaqsimuka minan naas jullit bu ko saxoo wallaahi mindeef lu toll ni tarfatu ay ni mënul loola dara ana aji saar tey jéem nañ ko rëccal lenn da xamal naa leen ku ci dof dof ba jëm koo fat wala ngay dof dof naan fii la dëkk fii la dëkk kaptan nañ la bu yàgg ñoom ñoo ko tey def ko te fu mu dugg dinañ ko xam fu mu dugg ñu ñu ngi portable bi di ko di ko gis nii ñu ngi koy gis jaxran jigéenu musiba bu kenn ànd ak moom bu dee leen ko daw comme kuy daw posom néewu timis la du reer du bàyyi ku reer aji saar jamono yi néewu timis la du reer du bàyyi ku reer bu ko kenn fat bu ko kenn faale bu ko kenn débat ci réseaux sociaux yi yi Facebook yi ngir yàlla képp ku fi wax say wax bu leen ko faale ñoom ñoo koy tey di indi ay ay ay euh, rumeur bi bëgg indi rumeur bi suba la 29 mooy projet garde rapprochée Ousmane ko parce que dañ ko programmé suba la Sénégal di football gis nga gis nga seen caay-caay waaye lu ñu bëgg def yàlla bañ lu ñu bëgg def yàlla bañ parce que nitu yàlla yaa ngi fi ànd ak seen xel mu neex yalla na yalla sam xalé yi garanti leen garde processus Ousmane Sonko ak ñi bëgg Ousmane Sonko ak ñi and ak Sénégal ñep nak di xéxal Sénégal pour diiné gi taxaw di xéxal Sénégal yërem jeune Sénégal di xéxal Sénégal pour Sénégal nak képp ku mu nekk sa bop nga diko def ta yalla tax yalla yalla sam la guddal sa fan. wa dama ni nee nañ dañoo woo maître Dior mu bañ té ñom ñep dañ doon wax naan Ousmane Sonko ne wuy jëm wuy wa légui Ousmane Sonko wuy jëna légui ñom ñu bañ té Ousmane Sonko ñu dem <coughs> ñu dem jëli ko légui nak yalla tourné na carte bi Ousmane Sonko bañul bañul tay biñ ko wowe ay deug sërëx yu den ñu ko tek yalla bañ tour nañ ay safara jabanté nañ end ba son perte ñu perte nañu parce que dañuy ak yalla kuy jëflanteeg nitu yalla yalla ngay jëflanté kuy jëflanteeg nitu yalla perte nga daanu nga xalangu nga da fa lañu tollu ni gis nga Macky Sall bu ni troisième mandat bi ni mu ko xalaatee ak ni mu ko lalee ba recruter ay nitam maa ngi gis moo laa mërgal wane ñi mu recruter loolu yëpp yàlla yàlla da koy laal nee naa leen man gëw ma stratégie Macky Sall yàlla naa yàgg naa ko wax stratégie suñu borom laa gëm te stratégie suñu borom fek yaa ko gëm sa noon bu la tegal ndëgg sax da koy laal kii mooy yàlla allahu akbar sama gars yi gëm leen yàlla te bañ a gëm kaddu Macky Sall sama gars yi gëm leen yàlla te bañ a gëm trace Macky Sall sama gars yi gëm leen yàlla te bañ a gëm pexey pexey général Moussa Fall wa general Moussa kan moko sak kan moko sak yalla yàlla pourtant li muy def ni bu ko neexoon yalla teggi ko fi de dedet yalla da koy baye nan ko defal bus mo wacce sa kaw nga xamni nga xamni do dara ana sama mbassa da don atté ma nga ci atté kay deug ba allahu akbar Ziz Omar xam jallo dem na ba xamni li dara du ci deug te pourtant mom page facebookam page facebookam motax gis nga doomu bañ nit yak ko pour bañ ko moom moom moom Omar Ba xam jàll looloo ko daloon moo tax mu def loolu ci page Facebook am mais ba mu gëstoo Ousmane Sonko xam Ousmane Sonko xool dossier bi xam ne lii ay kàcc la ay fen la te moom baayam jàngkatu daara la te moom Omar Ba xam jàll jaar na ci daara te xam na lu yàlla wax mu dellu gannaaw ragal yàlla. te pourtant dugal nañ ko ci ay fétiche lu ne kaay dem Inde kaay ma ngemb la kaay ma kuus la waaye ba mu ñëwee bañ ko ngembee kuus ko. ba ñu wisee seen i seen i garaawaale Ousmane Sonko dafa ñëw dafa ñëw jaar ci allahu akbar dëggal boppam nag xam nga mënoon na génn jàpp mais dëggal boppam ne ko damaa bëgg a jàpp mu dem jàpp pourtant lenkalitu Ousmane Sonko njàpp boobu mënoon nañ ko ci jël def ko si dara parce que Ousmane Sonko da leen wan ni faalewu ma man yàlla laay àndal may ma ma julli wan na leen fii yàllaa fi ne dem julli yoor yooram ñëwaat loolu rek loolu rek Ousmane Sonko da leen da leen a wan geste wan leen ko yàlla sama gars yi gis boo gëmee yàlla saxool njàpp soo bëggee te say noonu deel julli julli yoor yoor deel naafila xalaamul léegi deel saxoo allahuma salli ala muhammad wa sallim wala yaa zul jalal iqrab rabbu samawaati wal ard wala xasbunallahu ni man waqil wallahu yaqsimuka min annaasi wala la xawla wala xuuta la bilal azim wala an allahuma inna najaxaluka fi nuxurihim wa nauzu bika min sururihim yii boo koy saxoo ak laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina so koy saxoo di ñaan li nga bëgg di nga tësay non sey non fuñ lay bëgg japp rebb suñu borom moy wacc seen kaw duñ la tal mukk ci kaw suuf moo tax nañ bàyyi nit ñu nit yu ñu gis la bëgg ko toroxal wala nit yu ñu bëgg ko japp li ñaan dofa la gëna xam kër gu bari xat waye mbaam mo gis mbaam mo gis amna na roq bu mu dul dugg mbaam mo gis amna roq bu mu xaju xaj buy wow bu ne bu gisee lu ko jomal du wow sar dafa fen legui nak ñi mu fen ñi gouvernement bi dañu dem ba wëlbatiku jep ko bëggutuñ ko gis bëggutuñ ko tek bëtt pour ma jangal len li yalla wax ci alquran du deñ li yalla wax ci fen li yalla wax ci pexey non du antu pour ma jangal len ko delo ci seen xel wa dama ni ñom ñu ne ñoo tooñ Ousmane Sonko ñom Ousmane ko len toy mais ba tey ah yalla gi suturaal Ousmane Sonko de waa dama ni bo ba tey ñu Ousmane Sonko ñu def dara ba mu jall motax allahu akbar motax tax man gowma estrage Macky Sall estrage suñu borom la gëm ndax lu yalla wax du deñ waye lu Macky Sall wax mu deñ pourtant Macky Sall ñaata yoon muy nax jeune yi dama leen di dama leen gis ngeen fi usine bu ko bu mu immigré amul de wa léegi koku nak ak di bëggal tubaab yi li nga xamanteni arrangerul Afrique ak fañu saga sayidina Seydina Muhammad mu dem tew fa koku kan lay ñaan mu nangu koku kan lay pexeel mu soti xana ci lu yalla ànda waaye ki yàlla téyel boppam deug mu ñuko pexeel mu soti oustaz ali badar raw bañ koy jëli dañ ko fekk ak soxna mu tedd allahu akbar ñoo ñak kess ñu ñoo yées ñoo bon fekk ko ak soxna mu tedd ñu ñëw dajji buntu bi nako solo yere xam nga ne mak mo fekk mu tedd nako solo yere nga xam ni mi ngi won ak soxnam yalla naq suñu borom yalla rubu suñu borom wacc ni motax man len ousmane oustaz ali badar ndaw ba mu deewee man len oustaz ali badar ndaw ci bir suuf gouvernement ci jam man gawmako to ko wax gawmako ta ba mu dee ba tay buñu xolé sen bop duñu am lu len ba bañu oustaz ali badar ndaw mo wax yalla yep di joy xal yep delu ci alquran ñuy ñaan gis nga xalé yi ma won leen ñuy wayal Ousmane Sonko xolal ñun ñoñu ñoñu gëna gën Yalla ñoñu luñu ñaan Yalla Yalla def ko luñu ñaan Yalla Yalla def ko te dina leen jox lo xamanteni inshallah insha allah daaray alquran yi na ko tass ñu jang ko ñu xol inshallah 18 yasin 18 yasin lolu sunna la du bokalé du njabar du dara 18 yasin bo jaxlé deug deug jëlal 18 yasin nga jang ko fukki yasin ak juroom ñet ban la buy tak té xalé yoy bëgg nañu jang ko sëriñ daar yi nañ ma dégg né bëgg nañu jang ko ñu ñaan ci gouvernement bu bon bi képp ki yo xamanteni dañ la teuk nga ragal poison ak ñi nga xamanteni ñi ngi ci biti ragal poison tégal sa sa sa sa kasu ataya wala sa kop nga def ci ndox nga japp ba sel julli sa ñaar rak jang 18 yasin euf ko ci ba mu trembler nga ñaan yalla lepp lu nek sama yaram sama yaram yalla nako suñu borom bi setal bepp gatt fan bu nekk sama yaram yalla mako suñu borom bu roccil bu dee doomu aadamaa ko def may ma gudd fan lepp lu may lor ci sama yaram yalla mako suñu borom bu raxasal ci ya salamun ya latif ya ya ya salamun ya latif ya ya ya ya ya mujibu nga euf ko ci bamu tremblé nga nan ko nga xol nan ko nga dem nelaw def say askar nga teddi nelaw bo xeye nga defat ko bu la nexé nan ko wala nga dese ko bu xeyaté nga nan ko mané du yalla kenn du yalla yalla tegal nañu fi alquran yo xamanteni dañuy jobmal suñu non yalla tegal nañu fi alquran yo xamanteni dañuy tessay non yalla tegal nañu alquran yo xamanteni sey non dañ la top ba jafru mané aram tara kay fa jangal len ko gouvernement bi fi tadali ni ci katunu yalla bëggul ñu sénégal ne ci jamm mais ñom duñu nekk ci jamm ba ñuy dey suba suñu xey seen sutur day xawé ko lepp luñu def yalla wër len sama gaay alquran nga fa mu newon mm. alquran ku ko jang ñaan ci wuy suula xolaatal sa bop julli ku ko rafetal selal wuyisu la lo ñaan nangul xoolaatal sa bopp jullee nga fa mu newoon alxuraan nga fa mu newoon te genn ordonnance dunul gaaw julli ordonnance benn ordonnance gënul gaaw fajj julli japp sel di julli ordonnance bu gaaw a ngi noonu jàng alquran mu suxa suruh ordonnance bu graaw a ngi noonu néew na ñuy jàng alquran suñu borom di selal di njàpp febar bu bor di leen dugg néew xana yalla tek la ci natu jaarale ko ci néew ma amul de dama ne néew na xanaa yàlla teg la nattu jaarale ko ci ndax yàlla dina la teg nattu sax feebar bu metti tëral la ci lal ngir lu la naroon a dal ci kaw suuf ci àdduna boo doon dox mu tëralee la ko ci lal xaarloo la ba loolu romb mu wéral la nga jóg dem kii mooy yàlla yàlla am na loo xamante ne tey jii musiba baa balaa boo xam ne bu la doon fekk ci biti day faagaagal mu jël la dugal la ci kaso muy sa nattu ba loolu dem mu génne la li yëpp dafa am na ñaan yoo xamante ni tey jii doomi aadama bu jëlee pistolet ñëw fekk si la bëgg la bu ñëwee day waxtaan ak yow day fàttali ko fi indi day waxtaan am na <laughs> non kenn du yàlla allahu akbar kenn du yàlla del jàng sóoratun taaha del jàng sóoratun taaha di ci ñaan sa soxla del jàng sóoratun yaasin xolu alquraanul karim loo ci ñaan yàlla nangu du la du bu la rejeté rek xoolaatal sa bopp wala bu la rejeté te la nga ko ñaan dafa gënul ci yow mu koy yéexal waaye du la ci du la ci lor mukk lépp loo ragal jàkkale ko sa doomu sa moromu doomu aadama mais tar xul wallaahu aytu kursi nga xool nga xool sama gaa yi alxuraan lépp a ngi fi <coughs> benn julli nag laa leen di jox julli boo xam ne day faj aajo di faj lépp loo tiit bu leen aku ku ci nekk nga julli ko ñaanal sa bopp bu leen neexee ku ci nekk nga julli ko ñaanal Ousmane Sonko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam saa yu bu jaaxle julli boobu bu jaaxle ba jaaxle dëgg dëgg dëgg la koy def temps en temps ñaari ràq lay julli ñaareel bu bi bu ñaari ba pare Fatiha lu mu mu rabbil azim wa bihamdihi ñetti yoon bu siggee xam nga dafa war a du sujjóot day yëkkati suñu borom ñaan limu bëgg yëpp suñu borom da di si jóot ben gënul gaaw ñaan boobu fo jaxlé ba jaxlé ba jaxlé ba sës ba tit ñaanal ñaan boobu bo den ci yalla nak ñaanal ñaan boobu même bo xamul dara sax balu suñu borom ak allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika ba mu jeex nga julli ci nga ñaan ko ndax ñun ci toñ yalla lañu dëkk nak yalla mom dañuy yeen yërmande may duñu topé suñu rëcc rëcc buñ ton topé suñu rëcc rëcc musiba am ñaan bi julli bi ma leen wax man de fu bobu lay tek té buma ko bu ma sha allah alhamdullahi rabbil alamin sha allah sama gaay yi Sall du yalla du yonent bi ñu mu àndal duñu yalla duñu yonent bi ngeen xol seen mujjantal julli bobu nak ñaan leen ko ngeen ñaan rebb suñu borom wacc ci gouvernement bi ngeen xol lu ngeen ci ñaan suñu borom dinañ ko may ngeen su jot tam bu ngeen julle su jot ñaan fa lolu lu yomb suñu borom la te lu ñaan bu gëna gaawé nono fofu nak ah ñaan bi balu kan la fofu de mais fofu da ngay tag suñu borom kañ ko bakk ko ndax ni ngay wowe xalé di neexal mu bañ nga wo ko neexal ko yónni ko mu dem waw ñaan bobu moy yalla boko ko kañ ko bakk ko tag ko loko ñaan may la jote su su jote bu mujj nga ne salli ala muhammad wala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma salli wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika ba mu jeex boko ko nga ne astaghfirullah wa tubu ilayhi wala astaghfirullah azim ñetti yoon nga daan allahumma rabbi allahumma rabbi allahumma rabbi jul jalal wal ikram bu samawati wal ardi kun fa yakun maa ngi lay ñaan ci yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa qayum bu leen fàtte nag da ngeen koy woo de bu ngeen jullee ci seen ba pare euh, jéggalu da ngeen koy woo woo bi mooy lan allahuma rabbi allahuma rabbi allahuma rabbi mu wuyu la nga ne ko jul jalal karam bu samawati wal ard kooku turam bu foora ngi noonu nga ne ko yaa xayu yaa qayum yaa yaa nga daan ne ko kun fa yakun yaay buur di borom di ponkal di mbër yaay borom tour yu mag yu sel yu kawé yi kàttan nga wàcc su wàcc ko ci téré yi borom melokaan bu tedd bu taru bu rafet bi ma ngi lay ñaan man sa jaam bi dila bak dila kañ xaw ma munu bëgg nga mayma ci ya xadu ya sama dun ya xadu ya sama dun yaay borom aajo fajj aajo yi ma ngi lay ñaan nga fajj sama aajo dila bak dila kañ jara bak ya jara kañ فوفو نك بوفو اريتي غاني سبوخ القدوس رب الملائكه روحي سبوخ القدوس رب الملائكه روحي سبوخ القدوس رب الملائكه روحي لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا رب العزيز العظيم لا اله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم لا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لا سهل الا ما جحلته سهلا وتتجاهل خزانا اذا سكت سهلا اللهم صل على وسلم nga ñaan sa soxla yépp amu jeex la xol sa yo ñaané nak nga ni ci batu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu mazalimin wala ci batu sallallahu alaihi wa sallam sama gaay yi kenn du yalla yalla mo yor lu dakalem lem yor lu dak adina te ump jambi hmm. den nak dalal len xel yi gi mari sañe mi nga xamante hmm. nekkon ci terrain bi di xex ñuy japp di tejj di tejj di tejj di tejj tay ka ko doon tejj lu di tejj fal force mo koy fay jox ko oto kii mooy ki kii mooy yàlla ka ko doon tejj di tejj mo padlu Ousmane Sonko ne ko do dugg ensemble ñu gëna wax Ousmane Sonko dugg ensemble allahu akbar motax ñak ñàkk dugg ensemble Ousmane Sonko man leen ñun ñaanuñu yàlla ku ñu yor muy redoubler dañu ñaan yalla ku ñu yor muy passer parce que jamm ensemble lu mu fay wutati lu mu fay wutati jóge na impôt ñëw na ensemble passer.. na dem maire ñi ñaan yalla mu sommes dugg ci pale bi xam nga nit di nga xañ nit nga defee da nga ko xañ fekk yow yaay toroxal sa nous la nga koy xañ mo gën ca moom de <laughs> akubar la nga koy xañ fa mu jëm a ci kanam mo gën ensemble, kon sama gars yi bu leen tiit bu leen ragal gëm leen yàlla xam nga ci kan ngeen di maa tiital diw ka ngeen di tiital na fekk gëmul yàlla ka ngeen di tiital na fekk ci ruube lay dox ak naa fekk ak ñu koy fay ñi ci baree ngi ci biir askan bi nga xamante ne dañuy mbubboo askan bi duñu askan bi di lekk alalu Macky Sall ñoom ñëpp ay weeru gisagu leen dara dama xamal leen ko ne préparez vous préparez vous bu ngeen ko déggee mooy lu ngeen dégg bu mu leen bett lu leen dégg bu leen bett parce que yàlla moo nam ma raxas Sénégal dafa yërëm xale yi yërëm ndaw yi yërëm nitu yàlla yi yàlla yim ñuy rusee mooy xale yi daara yi nga xamante ne xaaja guddi dañuy judd jàng alquran mais bu doon ñun dong yàlla toroxal bu yàgg ndax nit ku ne nit nga koy rusee waaye yàlla am na lu mu ñuy rusee ni mu rusee saxaabu bu mag ba noonu la rusee ay jaamam yoo xamante ne ñu ngi ci ay ñu ngi ci wetam guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo ñoo tax toroxul ay yenn jaam yi ci seen wet ngeen bàyyi ko nguur gi nga xamanteni ni ku mu tiital dangaa jàngul alquran mais nguur gi seigne bi yalla waxo euh, astaghfirullah seigne naa sa waxoon na yi ba muy bañ koy laaj aqul zaman di ngeen am bour bu soxor bo xamne dina def lu ko neex te du ngeen ko meuna dara waye ba mu nitu yalla ku jege yalla dong mo koy meuna dara ku jege yalla kessa mo koy meuna dara te ku jege yalla kessa lay ragal parce que bu len fatte nak ku gëm yalla sax ci yow nga ragal yalla lepp euh, lu lay lor day daw lepp lu lay lor dalay ragal ku seytaane yëpp ragal ñeme yàlla kooku seytaane yi ragal moom dalay ragal yow nitu yàlla parce que yow da nga ragal yàlla yàlla teg la ngay mbugalu ci ñi nga xamante ni dañuy jaay nit ñi doole duñ la ñeme mukk parce que nitu yàlla mel noonu déggoo ma de képp ku ragal yàlla lépp luy lore dalay ragal du la ñeme mukk ana policier yi doon wër Ousmane Sonko di ko topp guddeeg bëccëg suba ngoon ba ñu sonnee eh, ŋàbb nañ seen kaaka dem de pourtant jour bi nga xamante ne Ousmane Sonko dafa waroon génn ba war a julli ji jumaa ñu ne ko doo julli ji jour boobu lan moo doon seen intention dem jëli Ousmane Sonko waaye gis lu ma yéem bu ñu tuuti rek dem taxawaat bu ñu jógee tuuti rek dem dem taxawaat kii mooy yàlla sama gars yi ñaan dafa am azkaaru suñu borom yi dafa am gis nga azkaaru yonent yi ku ko téye ba tey wallahi di nga jommal say noonu sëñ Tuubaa ba ko tubaab yi yóbboon bu ñu sañoon ñoo koy faat téye ko def ko comme Bob Marley wala ñu téye ko def ko comme loo xamante ne dañuy jàng ci moom exposé ko seen dëkk nit ñi di ko seetaan si. ay noonam lii lañ bëggoon waaye sëñ Touba saxoo baatu yàlla yi parce que dafa ni fas yéene nekk mindaanu xaadim rasul astafurlah fas yéene nekk mindaanu Seydina Muhammad sallam sëñ Touba lii la wax mooy xaadim rasul fas yéene nekk mindaanu Seydina Muhammad sallam parce que ci Seydina Muhammad sallam la doon roy moo tax mu jommal tubaab yi waa léegi tubaab yooyu tey. bañ sëñ Touba dina ñew di bëgg sët sëtu sëñ Touba ki bëgg ki bañ maam dina bëgg dina bëgg sëtu ki bañ maam bay dina bëgg doom heureusement nak motax gis nga yalla du sétan motax ba touba bi ñewé Touba gis nga leen yalla mu jëlé gis nga leen yalla mu jëlé amuñu fa ndam amuñu fa place parce que yalla du sétan yenn yi dédét yalla du sétan yenn yi sëñ Touba ligéyul yalla lo xamanteni ay nonam dina ñew ci ginnawam di toroxal ay sëtam wala ay noonam dinañ ñëw ci ginnaaw di bëgg lu ñu am ci lu ñu sonaloon sëñ Touba déedéet liggéey lu loolu yàlla moo tax yàlla yàlla da koy garantil ginnaawam sama gars yi jaamu leen yàlla fii ku jaamu yàlla yàlla sàmm la sa kanam sàmm la sa ginnaaw Cheikh Omar Foutiyou Tall mu tey Bou Kounta Ndiassane anamu tey ñeneen ak ñeneen ñu tey ñooñu liggéeyal suñu borom moo tax mu tey ana ki fi tok tay di jema a jaxase tarixa di jema a jaxase askan di jema a xeti yalla bañ parce que ñom ñoñe taxawon ci alquranul karim wa sunna ña nga ca biir bàmmeel yàlla sàmmal leen seen gannaaw mo jigen ju bax ñoo yem mm-hmm. jigéen ju bax ju jur dom ju bax mu koy jangal alquran bu dewe alquran bobu moy moy samp keureum ci aljana ndax doomam moo ko koy ñaanal motax lu bax am solo tak lu bax mu lay lu bax am solo sëñ Touba kan mooy waajuram bu jigéen maam jaara maam jaara lu mu liggéeyal borom këram tarbiyu ko fonk ko moo tax mu am doom ji ñu naan sëñ Touba maam Fadou Wale lu mu liggéeyal kër kër kër kër kër kii kër borom këram tarbiyu ko tarbiyu ko moo tax moom ci moom Alaaji Maalik jigéen yooyu tey ñoo jur yu baax waaye jigéen ju mel ne Adji di ummi Jamil taal dëkk bi tey moo rey lu nit ñi ci ay kàcc ma ci fenam moo tax doo am jàmm dina torox te mu jëm du baax waaye jigéen yu baax ñooñu ana Ndeye Khady Ndiaye mooy jigéen ju baax ji naatal dëkkam jigéen ju baax ji sauvé dëkkam jigéen ju baax ji ne man kat yàlla laa gëm ak yonent bi du jara jara lu may fen ba mu gëmee yàlla yàlla garanti ko ñu posone ko pour mu dee yàlla bañ Ndeye Khady Ndiaye benn doom bi génn benn doom bi des yàlla bañ parce que yàlla bu nammee garanti nitam képp ku fekkee tey moom bu sax ci dëgg yàlla day guddal sa fan téye la ngay garanti kooku ñoom li day xadi njaay deewu sax da leen a jaaxal da leen a jommal parce que yàlla ko fi teg ne ko yaa war a wax dëgg bi dama la fi teg pour jigéen ñu bon ñu roy ci yow pour ñu baax pour ñu jub pour ñu tuub kii mooy yàlla sama gars yi bu leen tiit bu leen ragal fii yàlla moo fi nekk Sénégal nii mu xam nga gouvernement bi ma xamal len nak tay gouvernement bi pour ñom dañu jekku recruter nañ seen nit wut nañ seen arme wut nañ seen lepp pour tek mais ñom dañu xamul ne lépp lu ñu def yalla du ci du ci ant parce que ñun ñi ngi lott di tuddu yalla di lott di jang alcorane di lott di sujjootal suñu borom di lott di sabbal suñu borom da duñu ko bayyi mukk ci kaw suuf di ñaan rebb suñu borom wacc seen kaw di ñaan yalla gantal len, na yalla gantalo won ñay ba ca abraha ba muy toje kaaba ka tass yaakaram yalla nako yalla gantalo takdari gantalo ko arme bi gantalo ko kep ko Macky Sall yaakaar yàlla toroxal ko rebb suñu borom wacc ko ñaan dafa am ñaan dafa am gis nga ñimu ñimu bëgg ñu xéxal ko ñooy ju nono seen biir moo tax sama gaay xas mu na laa man waqiilu xas yonte yalla ibrahima bako ko yefari sande won ci safar fa lu ko fa genné asbuna la wa man waqilu yalla mo doy ci yalla la waqiru motax yalla fekk ci ko ba jibril ñewé bama wowe suñu borom jibril ñew mu ne ko soxlo ma sa nimbal ndimbalu suñu borom bi la soxla suñu borom ñew ne ko safara seddal seddal bu ko du lor safara bi sedd guuy ci mom kon sama gaay ma ngi leen nuyu di rafetlu tewul bi di contant ci yeen yaayu asken do doon wax ak yeen pour delo ci sen xel xamal ne leen suñu ensemble bi tay nañ leen ñaanal suñu député yi ensemble ba amone ay sabar ak ak ay ay riit ay guitar ensemble bi micro fa am de ensemble bi ak bi ay big ak foye fa am de ensemble bi diplôme moo fa am de ensemble bi ay baccalauréat mo fa am de du ensemble tàcc feccal ma rekkal ma balal ma soirée ma defal ma ngoros ensemble ngoros nañu amone ak ensemble rëm tëmbitam ak ensemble sabar ensemble guitar ak riiti waye jeex na fi de Guy mari Sagna nga fa de Barthélémy Dias nga fa de Abbas nga fa de Birame sulay joba nga fa de kon yalla na la fa len ciat motax yewi asken bi boy wo ngeen andando bok bok nday bok bay and ak Ousmane Sonko mi mom la yalla denk mom la yalla jiite nangulen ko ku ci ñaaw ya ci des ku ci ñaaw ya ci torox nangu ndogolu yalla day yombal jaamu yalla nangu ndogalu day tax xaritok sa borom loko ñaan mu may la waye ñak nangu ndogolu yalla da ngay xeexal sa borom te ku xeexal sa borom lo ñaan do ko am te lu yalla def dafa gën kon nañ leen ko nangu jigen sax bu juré dom foog mu jur taw ba jur lu top ci taw jur ba jur mais bu yalla ne taw du tekki caatay tekki nangul leen ko yalla ko dogal du ñun mais ngeen ne li yalla dogal dañ koy raxas yalla yalla di raxas lu yalla dogal ngeen da ngeen koy faxas yalla yalla di faxas parce que xamu leen yàlla jàngu leen yàlla ku jang yalla xam ko lu yalla dogal di nga ne waw suñu député yi nak pourtant yon nañu dugg ensemble mais yalla dugal na leen suñu député yi Macky Sall ku nekkon di nga perte ensemble du ko gëm motax man leen def lu la neex am lu la neex amul fenn kenn du def lu la neex di am lu la neex amul fenn Karim Wade nak degg na dina ñew du ñew ni loolu yëpp mandu leen ci rek ba gis mandu leen ci ba gis ngir yalla dama bëgg débat Facebook yeeg YouTube yi ay Karim Wade dina ñew du ñew mandu leen ci ay ay yeneen yeneen ci xol yéen nañ leen tal suñu ñu dee ñi dee nañ leen tal di leen ñaanal ñi leen ñi ñi leen def loolu yàlla rëbb suñu borom wàcc seen kol gën leen a toroxal weer leen leneen li mooy yàlla sàmmal ñu senegal aar senegal lépp lu Macky Sall bëgg ci Sénégal suba ba sa jant so yàlla na ko ko yàlla gàntal lépp lu mu yaakaar yàlla na yàlla tas yaakaaram képp ku muy àndal yàlla na yàlla féewale leen noona leen tas seen diggante weddi leen sama gaa yi ñaan dafa am si allahumma salli ala ma wa sallim ci baatu laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minaz zaalimiin ñaan li ay bu yalla wacce da koy dolel ne ngeen ko fexé man allahumma inna najaxaluka fii nuxurim wa naawsu bika min sururin yalla ay bi la wacce pour nguur gu soxor bu bu toroxal askanam boko ko ñaané yalla yàlla bu suñu borom wacce kom yalla toroxal ko ba dul la mënal dara ba ci say non duñ la mënal dara boko waxé rek tuddal tuddal sa non kon fi yalla fi ne kon euh, suba inshallah la ki Ousmane Sonko yi di taxaw ci askan bi la te ñun askan bi Euh, fu mu toll nii kenn mënuñoo bégal kenn mënut ñoo bégal te kenn mënul tax ñu bég ku dul yàlla ndax di rey suñu askan kumba am ndey am kumba amul ndey di torturer askan bi di toroxal ñu daara yi tey nga ni yow dañuy danga ñuy bégal noonoo bégaloo ñu de dang ñoo bëgg a mat pour toroxal ñu waaye bégaloo ñu kon dama ni bu subaa incha allah tribunal ba na fees del del del del ànd ak discipline di déglu ni yàlla di àttee dëgg ne ñepp dem ci xel mu dal ñepp dem ci yarak teggin te xamni yalla ñuy fayul fajal nu bu kenn tankam lu na fess dell dell te ñun ñepp téla dem ne ñepp téla dem parce que lu tax ñu programmer ko le 29 tombe Sénégal du football parce que dañ ko programmer légui na nañ leen won ni ñun avant football ñun li mo ñu ñor avant football suñu joueur yi nañ dem gagner Sadio Mané yalla na ko yalla yëkëti yalla wër wér ak jàmm waaye tamit suñu ñi ci biir kasso bi ñu mënuñu seetaan football di leen fi bàyyi na leen dem teewlu taxawu leen parce que ñoom dañoo taxaw Sénégal ñoom dañoo taxaw pour xettali Sénégal moo leen yóbbee li ñu nekkee ay jeunes yooyu ñoo xamante ni dañu taq tey la seen baqal ngir Sénégal kon buñ ñu gën a gore nañ leen dem taxaw taxaw bu rafet ànd ak yar ak teggi taxawu leen déglu leen gunge leen ñu ñibbisi ci kàttanu yàlla fii fàtte xaju fi ñaata at ñu koy souffrir ñaata at ñu ñuy toroxal ñaata at ñu ñuy torturé ñu ne ñun dinañu def rumeur bu ñëw ñu teg rumeur pour fàtte ngir yàlla bàyyi leen loolu Bayi leen rumeur yi ñuy di faté xoqatal li ñi xoqatal ak di nappé ak du xol facebook jàmbur yi di youtube yépp ma ne du ñu yàlla yonent bi la wax ñu ci dara Fi yalla fi ne nak deug tax ñuy wax deug mo tax ñuy wax say say yalla du ko suturaa mukk foo fekk say say yalla da koy wër bu défé légui yalla wër ko légui motax tax rek am solo gëm yalla rek am solo bax rek am solo muñ rek am solo boko bolé rek yalla fay la sa mbax allahu akbar kon sama gay ma ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jamm di sakku seen ñaan ñi ñaanalante kep ku nak mu laal sa xol nga bal ma ak aduna deme nonu ndax deug du neex ñep kep ko xamne neex na la nak du man yalla la nga sante ko sa nu ñaanal la nga ñu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil khasanatan hasanatan wa qina azabana allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita taala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum magib. allahuma barik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidum majid allahuma salli wa sallim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 yal na yàlla defal leen jàmm may ñu wér ak gudd fan kattan fekk ak tal sutura gu sax wërsëg gu yàgg yal na yàlla làq ñu fi yàq yeggu li jant ak weer ak biddéew sore doomu aadama yal nañ ko sore ñun waa Sénégal yëpp sore ko suñuy noon tiim leen di waddal muy xaru safara ci nooñ yàlla am na ko mën na ko defal gouvernement bi fi ne yal na wàcc rëbb suñu borom bi wàcc seen kaw lépp lu ñuy jéemal di jógal Sénégal yal na rëbb suñu borom wàcc seen kaw ba duñu tal yàlla na ko mën na ko seen yaakaar yal na yàlla gëlëmal yal na yàlla gumbaal seen i seen kaw yàlla am ñu jàmm yal na ko noonu ay noonam Ousmane Sonko képp ko nam dëgg sa yàlla nga dëgg dajëm képp ko nam dëgg dëgg la ju Sénégal askanu Sénégal yal na askanu Sénégal wër na dëgg sa dëgg saraxal la sa naq yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla def Sénégal gi daaray alxuraan ñëpp yal na yàlla jubale ñu ñu doon benn yàlla dooleel ñu ci kaw gouvernement bu bon bi yàlla am na ko mën na ko def sama gars yi ñaan leen daaray alxuraan yi 18 yaasin daaray alxuraan yi ngeen ñaan ci yàlla sooratun taaha ngeen ñaan ci yàlla ci gouvernement bi ñaan ci lu baax ci Sénégal ngeen xool incha allah te bu leen tiit bu leen ragal bu leen tiit bu leen ragal daaray alxuraan yee leen xale yi xaaju guddi ñoo jege yàlla ñu jàng sóoratu euh, yaasin 18 fois ñu ñaan ci baatu yaa salaam yàlla def Sénégal gi jàmm ci baatu yaa salaam yàlla def Ousmane Sonko nemmee ko turam bi ni mu ci demee ci bismillah yàlla na ko jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla gëlëmal ay noonam ba bépp noonam bu koy wër doo ko gis ba bépp noonam bu koy tiim yàlla gumbalal gëlëmal sa yu bon ci sa kaw yàlla am na ko mën na ko la ga sama gars yi ñaan dafa am de wallahi ñaan dafa am kontaan ci yéen loolu patriote yi teewlu teewlu bi kontaan ci lool jërëjëf yal nañu yàlla may wér a gudd fan defal nu sutura xéewal ak wërsëg yàlla bu ñu séddale dara suñu ginnaaw bu ñu séddale ci ginnaaw njaboot gi ñi fi jot a jóge yal na yàlla xare leen ajjana rawatina sama waajur bu góor jigéen yërmande gi ñu amoon ci man ba may tuut tànk yàlla wàccee ko seen kaw xare leen ko ajjana musal leen ci fitnay jahannama musal na ko mën na ko yàlla am na ko mën na ko yàlla def yàlla nañ fa yàgg di ñaan ñu ci biir suuf mu leen fay fekk yaatal seen bàmmeel ñun ñu fi ne yàlla xiir nu ci boppam saxal nu ci boppam te nangul suñu cër jaamu yàlla te ñu màggatee wér ak kattan te yàlla saxal ci ndaw yoonu njub saxal leen ci gëm yàlla jege yàlla yàlla fi yàlla wàccee jàmm xéewal ak wërsëg ñi ci hôpital yàlla safara del seen sago ci kaso bi yàlla jubal génne leen ñi ñi jalis yàlla yombal nañ ko yalla suñu borom may barkel ko njabot gi yalla sutural na ci courant bi ak dépense bi ak ndox bi yaga bañ ko kep yalla am na ko mën nako yalla yalla na xol yi djubala xol yi tapé xol yi mu doon ben raxasi ki ñaanal soxor may ñu xol mu xol ngam ci baatu laa subhanaka indikatuna zalimin ci batu sallallahu ala muhammad salamu alaykum wa rahmatullah ñu fanaan jamm ci ñi nga xamni ñu ci guddi teud ci bismillah yow ci alhamdulillah rabbil alamin ñi ci becc nak yalla nañ joxe ci bismillah dem ci rabbil alamin ci allahumma sallallahu salamu alaykum wa rahmatullah allahumma amin Thank you.